Jou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ni sama question répondre woo ko ci ba léegi si <laughs> millions yi laay laajte li nga xamante ni moom nga récolté si événement bi. voilà juste di laajte rek naka la naka la événement bi déroulé. Hmm. par rapport ak clientèle yi est-ce que euh, nu mu doon demee noonu la demee noonu la demee waa Seetaan yi. waaw alhamdulilah dañuy sant rek dañuy sant aussi parce que comme ni nga ko waxee yaakaar naa constat bi donc circonstances yi gis nañ ni mu demee bu baax baax moo tax lu lu lu ñëw rek dañ koy sant yàlla mais alhamdulilah quand même liggéey nañ euh, peut-être que ni jàmm moom lu yàlla dogal rek ñun dañ koy accepté mais aussi yàlla bu baax a baax parce que euh, na leneen lu fi jaar yàlla lu mu na leneen ne nii tamit muy masque yi yooyu tamit xaw da ñoom docteur jàpp nañ ci parce que commande yi lekk nañ ci tuuti wecca donc ñu ngi sant yàlla daal jàpp nañ ne affaire moom bu yàlla tëjee rek dinañ di fii quoi kon donc dañuy sant yàlla parce que lii nekkul nekkul théorie rek la laal bépp domaine boo dem donc euh, laal na leen touché na leen kon donc bu ñëwee ci ñun tamit dañuy sant yàlla bu baax a baax mais alhamdulilah julli nañ ko ci jàmm sant yàlla gars yi ñawlu nañ waaw peut-être que nii dina am différence par rapport ak yi doon am mais nii dañuy sant yàlla bu baax mais loolu moo ñu war quoi sant yàlla moo ñu war en fait. voilà merci beaucoup Vito ñu ñëwaat rek euh, suñu suñu suñu plateau ak docteur voilà ma bàyyi waat tamit. bàyyi nga maag euh, bàyyi nga maag sama xarit sama sama sama waay ñuy wax man ñii li ñuy wax docteur sunu sunu grand frère la ba pare ni ko Boubacar waxee sànq sunu mentor la sunu du ma du ma jóg ci di ko waxaat encore sunu référence la ñun kaarag ñu namuñu dara ni ko xale yi di waxee namuñu dara bu yow mënoon nañu dem di wëri naan di woy suñu référence wala diw la ñuy roy wala diw ñun ñun yéen la ñuy roy waaw ñun amuñu exemple bu ñuy dem wëri ci beneen dëkk wala beneen gox wala beneen wala YouTube wala Facebook exemple yaa ngi fii dañuy génn suñu buntu kër dugg kër exemple te mu ngi fii fees benn te moom moom c'est le summum waaw li koy waxee plafond la ci wàllum exemple loolu dañ ciy sant yàlla bu ñu ko waxee ñoom Boubacar dañ ko waxee ñoom Balla Dioum ñoom Zo création ñu gis ne yéen bu seen wàllu wéyee seen rakk yaa ngi nii toog ah, te boobu tamit fierté la ñu ne ñii ñooy suñuy rakk fierté la nga toog kaarak ne man Boubacar Ba sama rakk la fierté la nga toog kaarak ne xam naa Balla Dioum waaw ah, loolu c'est des c'est des choses yi nga xam ne yàlla daf ñu ko defal te ñu ngi ko koy sante xeebuñu ko nag te àdduna du yàgg bañ ko xeeb te genre affaire yi moo tax fu ñu toll wala ku ñu mënti nekk ci àdduna kaarang la ñuy wax ndax kaarang namul dara dara la kaarang namul fu toll ni li may wax ak euh, docteur docteur mi ngay commencé ci ca ca Abdourahmane Diallo ba ci docteur Abdourahmane Diallo loolu xobe la woon wala bëgg jàng la woon wala wala lan la woon qu'est-ce qui quest xale yi nga xam ne ñu ngi xam ne lii jombu leen c'est c'est quoi secret lan la waaw euh, njàng de moom euh, amul secret parce que ñaar ñoo am ki nga xamante maanaam euh, génie la comme ni ngeen ko xamee même bu jàngut day réussir ak koo xamante ne du génie mais dafa gëm ne dafa war a réussir ci mbir mi man mën naa ne bokk moon ci génie mais doon naa gis samay moroom di avancé ma doon dem sàmmi moment bi nga xamante ne ñoom dañ doon dem di def ay cours de vacances wala ñu leen di encadrer ci kër yi il a ma def benn prise de conscience xam ne bu may dem di sàmmi war naa mën a jël sama cahier de leçon def ko ci muus buy taw bu dee nawet la parce que nawet ñun lañ doon sàmmi mais jàng sama leçon pendant que ñoom ñuy def seeni cours de vacances man may réviser leçon yi nga xamante ne moom lañ jotoon def Euh, enseignants yi ñu mujj a yor parce que qu'on ne se voile pas également la face nekkul ne dañoo def cm pour une première fois ñu jàll ko reprendre nañ suñu CM2 laata ñuy jàll euh, bi ñu jàllee nag euh, ñu xam ne comme li ñuy wax ne en toute chose finalité bi moo gën am solo gis nañ ci tey ñoo xamante ne ay génie la woon mais dañu dem ba ci kanam après ñu jeter l'éponge am ñoo xamante ne nii maanaam ku mel ni Pape Sow mun naa leen ko jox ci wàllu sport Pape Sow mënutoon sax daw Amadou Samba Fata Sow mais il a fallu que mu góom boppam ba vitesse course de vitesse ku ko doon def ak moom maanaam da ngay fekk ci ginnaaw léegi nag ñun aussi eh, exemple bu mel noonu jël nañ ko eh, li Mandela doon wax un long chemin vers la liberté boo leen xoolee parcours yi Mandela il a fallu moom tamit mu jàng dem def licence am Eh, dem inscrire ci barreau eh, Johannesburg ba mu doon avocat mën a porter benn combat bi comme ni ngeen ko waxee tour à tour mu nekk ministre devenir comment dirais-je la ministre conseiller devenir ce qu'on président de la république léegi na ñun si suñu parcours bi ñu jógee eh, école élémentaire mun ngeen dem vérifier archive yi Toubacouta mosuñ génn ci li nga xamante ne mooy cinq premiers Toubacouta bi ñu fa nekkee yàlla def na monsieur Ndiaye moo ñu yoroon y avait ak benn jigéen bu ñu naan Mariama Sarr ñun ñoo fa nekkoon ñu jóge fa dem Sokone eh, les meilleurs enseignants aujourd'hui yi nga xamante ne moom la Sokone am kenn si ñoom laa leen di citer muy Gawsu Camara amul kenn ku ko gën a taxaw Sokone ñoom la Lamine Diop xam nañ ko donc am matière de science dafa taxaw yàlla def na tey c'est un professeur muy université bu Bambey ñun bi ñu jógee ndoo Sokone si lañ dem Thiès moom mu dem inscrire u f nekk man ma nekk r bu ma leen waxee ñett ñi nga xamante ne ñoom lañ doon xëccool ci classe bi ñoom actuellement ñu ngi ci ay projet de développement ñoo koy américain ñooy liggéey kenn ki il de Thiès il s'appelle Latif Tine mu ngi ci ay affaire de droit de l'homme boo leen duggee ci net bi mën nañ ko vérifier ak Ilam Diallo il de Diass ce sont les trois yi nga xamante ne ñoom lañ doon xëccoo y a un quatrième boo xam ne c'est l'adjoint au gouverneur de Kaolack il s'appelle donc ñooñu aussi bi ñu bokkee classe il a fallu que maanaam euh, BFM bi bi ñu ko amee te Sokone lañ ko amee ñu dem Thiès donc ñu reyante bokk ci les meilleurs jàll premier tour année boobu noonu ñett ñoom ñoo fi jàlloon premier tour Kaarang muy Abdoulaye Ba sama frère muy Henri Omar Diatta ak man keneen ku jàll bac 2003 Kaarang xamal ne deuxième tour nga ko jàll mais ñett ñoo fi jàlloon d'office Abdoulaye Ba moomu la Henri Omar Diatta ak man. si désolé nag parce que je à l'histoire xam naa ne day laaj jamono dina ñëw ñu nettali ko xale yi en trois ñett ñoo fi jàlloon d'office muy ñun ñooñu bi yàlla defee nag ñu dem université ñu orienté ma département russe professeur Demba Gadiaga moo fa nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm tey ñi nekk département anglais professeur bi ñuy wax monsieur Mendy man moo ma yoroon au lycée Malick Sy de Thiès monsieur Mendy bi dajee ci escalier yi laaj ma fan ñu orienté mu ne ko département euh, Rus laa nekk li ma njëkk a wax mooy waay Mr Diallo li ma ne waay mu ne ko nothing just because they took me there I don't ma ci wax tegal mooy dama ne dama mu ne ko awma ci kii nu mu tudd euh, dañu fa jël awma ci choix léegi nag mu ne ma il faut nga delsi bref donc finalement si laa dem monsieur Gadiaga comme que law be mu ne ma bon fii ngay des dematoo feneen ce qui m'a permis d'être maintenu au département de Rufisque bi ma demee nag ba ma am sama licence ñu ngi di déposer école normale temps yooyu noonu on n'avait pas suffisamment de professeurs da ngay déposer sur dossier lañ lay jël nga jàngale ji amul yëpp dem jàngale ji donc yi à l'époque du wax salaire yi fii parce que daw je respecte mes collègues salaire salaire yi à l'époque mënul ma woon permettre ya ma amoon ma ci dépendre di ci soutenir sama famille mbooloo di ci soutenir ñeneen j'étais coiffeur professionnel xam naa li ma doon am ci wat bi parce que ñuy wat kaarañ fi yëpp pratiquement bu ñuy xam histoire xam nañ ne sama salon lañ jaar man maa leen tàggat donc loolu tax ma ne damay poursuivre samay études année bi ñuy def maîtrise année boobu la ñoom Pa Modou génn ci la am master mu quitté université man année bi ma amee maîtrise nag ci la am bourse étrangère dem Russie ma am naa maîtrise Sénégal am master 2 foofu war a ñib si mais comme que ay perspectives ñu ngi fi te génération boobu am na ñun ñu ñu xamoon ñoo xam ne commencé woon nañ am doctorat boo ñib si tey Sénégal peut être yaa sama ñoom frère Balla Dioum ak yooyu noonu tu allais avoir les mêmes diplômes que tes frères te frères yooyu dañu soxla li nga xam ne mooy vitrine référence tey ñun ñoo ko doon mais fii ay année tuuti yéen yéen a koy doonal ñun suñuy doom ak suñu rakk ñu ne il faut que ñu ñu par voie concourante la ñu jàll parce que à étranger maanaam poste yi dañu koy eh, parce que études yi dañu koy financer poste pour nga mën a def kii nu mu tudd doctorat il faut que nga compétir ñun trois ñoo jàlloon ñaari afghan ak man en tant que sénégalais et je suis le premier sénégalais université ba ma jàngee eh, Patrice Lumumba actuellement muy l'université de l'amitié des boo xamante ne moo fa am diplôme rouge ma jógee foofu si ñi ñu sélectionné également parce que man je faisais la linguistique ñu orienté ma ñu def concours ma jàll en littérature parce que en perspective y avait des professeurs de littérature yoo xam ne waroon nañ dem retraite yàlla def ma ñib si bi ma ñib see je me suis lancé euh, en politique ma lancé au 2014 yàlla def li muy def euh, ma am trois conseils j'ai perdu les élections mais la même année ñu lancé benn appel à candidature à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar yàlla dimbale ma ñu recruter ma ma nekk enseignant chercheur en 2015 2016 euh, ñu jël ma FASTEF ma commencé fa di fa assurer formation donc da ngeen di gis maanaam euh, au fur mesure ngay avancé day am défi bu nekk sa kanam bi ma nekkee école élémentaire après mes 6 ans dama waroon dem def fi examen am sama certificat jóge fi war a def sa BFEM nga dem def ko yàlla dimbale la nga am ko ak leneen ak leneen ba année bi nga xamante ne le 17 mai 2013 en Russie yàlla dimbale ma. ma soutenir sama thèse jàll ko euh, ma ñib si Sénégal nag pare pour servir li nga xamante ne mooy sama réew munoon naa fa des parce sama morom yu bëri dem nañ Canada wala États-Unis wala France mais bon comme ni ñu koy waxee ñoom Cheikh Anta Diop ñoom Léopold Sédar Senghor bi ñu paree seen njàng ñoom Houphouët-Boigny dañu dellu si seen réew yi jéem a servir seen patrie ak lu ñu leen mënta reprocher lu nekk nañ leen nangul au moins ce patriotisme là bi nga xam ne moo leen poussé ñu dellu man ci gàttal Eh, je ne dis pas que ne eh, ce n'est pas possible c'est bien possible mais boo bëggee comprendre mission bi yomboon na la yombul da ngeen di xool rétroviseur bi xool bi ñu tàmbalee ñun ak ñan la woon ñan ñoo arrivé exemple dong laa leen di jox Sénégal s'ils sont cinq candidats bu ñu présenté au BFM kenn moo siy jàll quatre yëpp dañu échoué loolu ngeen retenir ko te mun ngeen ko vérifier à travers les informations bu dee cinq lañ kenn moom moo ci am BFM moom quatre yëpp dañu échoué te am doctorat Sénégal nag yomb na yombul mais guddi yi ñu toll nii le président de la république nee na nañu def le tout ba suñu xale ñu mën a soutenir am seen doctorat donc ci yéen la des yéen ñi nga xamante ni yéen ngi def master soyez ambitieux te ngeen xam ne bu dul Sénégal mën na doon ayoo